Thank you asalaamaaleykum euh, suñu mbokku téléspectateur ñuy seetaan euh, suñu chaine suñu label TV ci xolu Sénégal ci xolu sénégalais yi tey ci àjjuma bi ma leen di souhaiter juma mubarak comme ni ma ko defee démb euh, Carlos moo ñu indi woon qui veut travailler n'a qu'à travailler celui qui ne veut pas travailler maanaam na ñibbi këram tey mu ne ñu en matière d'argent et en matière de nourriture il n'y a maanaam moom du partager lépp loo xamante ne rek lekk la wala xaalis la cay Carlos Carlos il faut partager tey nag ñuy ñëw si li nga xamante ne moom mooy la polygamie ñu ne ndax euh, phénomène de société la wala mode la ma siy dalal ki nga xamante ne benn jeune la benn prestataire de service tudd Ahmed Diop moom euh, en tant que en tout cas. monsieur homme marié ou bien célibataire ça dépendra ci fu muy taxawee <laughs> ñuy wax moom lan moo si gis-gisam causes yi causes yi ak li nga xamante ne aussi mooy conséquences yi parce que gis nañ ne famille yu bëri tamit euh, dañuy euh, tas ndax loolu mais balaa ñuy xuus ci loolu euh, di jëlu mm-hmm. tey yaa toog de ana la <laughs> mu ngi ñëw si <laughs> kanam. ba daa biddantiwaat comme démb. non uray tamit nag est-ce que duñ ko wutal oto. du dem <laughs> du dem mais ne nañ gan ganale. bàyyi ma bàyyi euh, sama invité bi mu nuyoo ci suñu émission kaa yi tey man nag ñetti kaalaa am damay am kaawu sécurité bi santé bi éducation bi parce que dégg naa may secteur yi gën a feebar. waaw des fois ma cabaxal ci benn politique bi. loolu moom am na dëgg la. <laughs> wante dañuy def dara avant ñuy tàmbale. Mhm. dañuy nuyu téléspectateurs yi. Mhm. suñu Label TV ñu leen di ñoom ñëpp di leen siyaar. di leen wax ni àjjuma mu barak di leen ñaanal tawféex ak taysiir mhm. sutura àdduna ak alaaxira incha allah. Mhm. jërëjëf d' accord jërëjëf euh, Ahmet Diop mu doon tey suñu gan di jéelu daa mel ni tey nag moom góor ñi ñoo fi ëpp de ñaar contre du ma ko nangu wala il mu ñëw ma bàyyi la nga nuyoo. <laughs> waaw merci mhm. nuyu suñu téléspectateurs yi di suñu invité di ko remercier euh, ci disponibilité bu ma am tey ñëw teew ci suñu émission kaay tey. di ziare bépp fans suñu label TV euh, di leen jaajëfal bu baax a baax ku foo waaye mën a nekk ci Sénégal partout foo mën ta nekk rek ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci suñu émission bi kaay. Mm. waaw démb gis naa la ci suñu buzz yow yaa ngi fépp. Ah, tamit est-ce que doo tànn rek. ma si polyvalent. tu es eh, yaa ngi dégg boobu. <laughs> non non la <laughs> d'accord mais comme ni ma ko waxee nag ñu ngi ci émission kaay Sénégal démb nee naa leen da ngay yeewu fajar ba fajar 24 heures sur 24 ngay kaa. démb balaa ñuy xuus ci polygamie bi y a quelque chose qui s'est passé au Mariste. Hmm. waaw tout de chez parce que man hmm. Dalifort laa dëkk Mariste euh, benn tali moo dugg suñu diggante mais y a une dame certainement peut-être dégg nga ko xaalis génn dugg ci am donc le temps que muy sécuriser euh, nu mu tudd oto bi euh, un gars toog ci ginnaaw génnal ko góon maanaam daal démb film lañ doon joué teg ko à la tempe ne ko jox ma li nga yox est-ce que tu vois quand même euh, c'est c'est ça devient grave léegi waa yooyu jàppuñu ko jàpp nañ ko parce que après la dame elle a eu l'intelligence nee moom parce que moom moo doon raconté après <coughs> dafa plongé ci tali bi dafa ubbi portière am plongé ci tali bi commencé yuuxu mm-hmm. ne sàccee sàccee mm-hmm. donc euh, gaayen bi ñëw si kanam. taal oto bi daw. mais mbëkk na ñetti oto. mais malheureusement pour lui xam naa maîtriser wul Maris yi ah. dafa dugg ci benn impasse parce que Maris boo deful ndànk rek da ngay dugg ci impasse. bu mu duggee si impasse bi nag wàcc gars yi jàpp ko. dégg naa nag duur ko ba mu bëgg a dee xam naa di jëlu yomb ba fa newoon da koy rey. <laughs> léegi nag dóor ko ba mu bëgg di après si euh, ko ñëw euh, mais euh, selon quand même des sources ñu ngi nekk il est entre mais le pire dans ça c'est qu'il un jeune. 83 est né de 83 bon on peut le considérer comme un jeune. comme jeune est-ce que boobu tamit. waaw bi si suñu réew moom wax dañuy wax dëgg dëgg dëgg. liñ na man mënuma comprendre bu par exemple manifestation bu amee. Mhm. ñu déplorer sécurité bu doy. Mhm. pour ñuy manifester. gis nañ ko tout récemment. Mhm. léegi pourquoi pas ñu teg ay checkpoint ci ci mbedd bi. boo xamante ni du matin au soir. amul kay ay partie de vingt heures comme ça patrouille am non dañuy teg ay checkpoint yoo xamante ni par exemple day amaale en même temps sapeur. parce que tamit accident mën na am. na am à tout moment à tout moment. Mhm. mën na am man moom loolu laa doom ñaax daal ñi nga xamante ni tey ñoo nekk euh, ci boppu réew mi. Mhm. loolu daal. Mhm. di jëlu. l'insécurité moom bari na fi. te euh, li li am nii bari yoon na fi te gars yi ñu koy defaat encore ba léegi <clears throat> état yi trouvé wuñu solution. Euh, pour pour pour pour mun a pour mu mun a mun a saafara. parce que lii dafa doy waar. dafa doy waar trop eh, ak arme léegi nit yi dañuy doxantu ak arme mm-hmm, mm-hmm. ak arme pistolet pistolet xam nga ñun gis naa xam nañ ay agression ak paaka ak si mais quand même avec une arme voilà waaw dañu la braqué génne pistolet bi li nga yor jox ma li nga yor après boo joxul après ñu rey la après du mujjee fenn c'est ça mhm. en fait mun mun naa ne et c'est en pleine journée ah banque la génn donc il était 15 heures et quelques ça veut dire que c'est en pleine journée te si benn banque bu nekk du ma wax tur bi pour ne pas faire la pub mhm. bu nekk si alignement wu euh, Marissi la grande voie la grande voie brioche ba xam ne les gens euh, à tout moment mouvement dañuy dox. tu vois donc euh, en pleine journée. moom mu am fitu def loolu. kon kon cela veut moom bàyyi na xel ci ndaw si bi. xëy na yàgg na ko topp da koy topp. Mm-hmm. yàgg na ko topp da ko suivre ba ba mm-hmm. fu mu gaaree ak fu mu wàcc dugg si banque bi. Mm-hmm. moom mu ñëw def def def ñaaw ñaawanteefu yooyu noonu c'est dommage. c'est euh, dommage surtout que damay rejoindre Ahmed Diop comme lu mu wax il faudrait aussi ñu jël ay mesures de sécurité comme ni nga ko waxee surtout fin du mois bi. Mm. da ci la ñuy gën a remarquer euh, jusqu'au 10 ou 15. da ngay gis ne gars yi dañuy topp nit ñi. SUVA ci banque yi donc ce qu'on en tout cas ñaax population bi mooy que ni képp kuy dem banque ci période boobu noonu euh, du question que ni jigéen mënul euh, Euh, protéger boppam mais ce bien tamit nga ànd ak koo xamante ne góor la en cas yooyu mm-hmm. est-ce que tu dina mën a réagir parce que am na xam ne bu ñu tiitee peut-être moom am na présence d'esprit tëdd si tali bi yuuxu pour que nit ñi réagir mais ça aurait été peut-être une autre personne du am présence d'esprit boobu donc ñoom dañuy am ay femmes agresseurs yi mm-hmm. ñun tamit il faut ñu am ay femmes nañu jël benn di jëlu solal ko tenue militaire mu ñëw. que am nañu ah. est-ce que am nañu ñu a àndal. y a certaines y a yoo xamante ni eh, benn jigéen moo fa ne ak uh-huh. jànkam voilà. Mm. Eh, eh, waaw borom kër gi. cousin yaa ngi fi parce que ñoom tey mm. léegi toogaay amul toogaay amatul da ngay xëy rek nga dem sa liggéey da nekk sa say say say say lijjante. waaw waaw c'est vrai léegi nekk fii à chaque boo yow ñëw diggéeloo kaay gu ngeen banque nii mm. naa man aw ma xam Euh, mais est-ce que jaru ko tamit. Mhm. pour nga dem wut kenn koo xamante ne yaa ngi dem banque xam nga ne tu retires une grosse somme d'argent nga jël ko nga ne ko pour mu sécuriser la ba nga jël sa xaalis ba dem fi ngay dem. xam nga pour une tu payes. élément sécurité. Mhm. fay bi méttiwul. méttiwul de mhm. journée c'est à quinze mille des fois vingt mille ça mhm. dépend ba mhm. pare ci banque nga jëm dangay ngay récupérer xaalis une grosse somme d'argent en ah. war nga mën wut kenn koo xam da nga koy jox dara quoi mu yóbbu mu yóbbu la loolu war na mën nekk leen tamit ah, war na war nañ ci war nañ ko mën xool ñu jéem a xool ni ñuy légaliser port d'arme tamit ñu xool ñiñ koy jox tamit da nga indi sa casier judiciaire ñu xool ndax yow defkat nga wala doo defkat loolu yëpp ñu xool ndax yow tamit ci ban business ngay liggéey bu fekkee business su xaalis ngay liggéey war nañ la ko mën jox quoi yóbbu la champ de tir nga jàng tiir man si sama xalaat bu gàtt daal mm-hmm. waaw mm-hmm. d'accord ñu ñu ñu encadré ko daal en tout cas pour ne pas que armée yi tamit daanu ci ay loxo mm-hmm. ñuy mel ni Modou ñoom euh, Modou est-ce que tu vois ñu ñëw fii ñu jox leen arme ñu def ñaawteef kor uray boobu noonu waaw ci kaala dëkk moom kaala si boppam moom ay dégâts ay dégâts rek lay def wóoru wóoru <laughs> d'accord léegi nag juste c'était pour euh, wax li nga xamante ne moom mooy actualité bi par rapport ak sécurité bi ñaaxaat encore population bi ñu bàyyi surtout les femmes qui vont à la fin du mois dem banque retirer xaalis soit pour seen besoin personnel ou bien pour leur aussi personnel boo xam ne peut-être euh, kii nañ ko euh, recruter nañ leen mm. may ñaaxaale donc euh, suñu responsable Marie Marie ah Marie bay demati banque woo ma ma escorté la kenn la laal. mais est-ce que doom bàyyi ma ànd ak moom. dama la mais nag fenn tamit. Mm-hmm. fenn am na erreur. muy góor yi nekk ci biir kër yi am sa jabar mhm. muy dem banque. war nga ko mën gunge bu fekkee tamit li ngay wax dëgg la ci yow. ah merci beaucoup loolu tamit dëgg la. bu fekkee li ngay wax dëgg la ci yow. Mhm. war nga ko mën gunge quoi mhm. même bu fekkee benn cinq minutes la wala dix minutes ngeen ànd. nga mhm. toog ci oto bi xaar ko. mu dem lijjanti li muy lijjanti dugaat. ok loolu tamit ci la c'est très important. merci beaucoup euh, Ahmed dafay tax nag ñu dugg ci li nga xamante ne moom mooy polygamie ñu ne phénomène de société ou la les causes les conséquences yéenay tas seen kër yi Ahmed. ay eh, ñun ñu jëm. kër yi du ñun ñoo koy tas ah. du koy tas. kër koy tas. ah waaw lu tax ngeen di wut jabar ay ñaari jabar am nga benn nga ne man sama jabar qualité yi laa bëgg ci moom li laa bëgg ci moom. Ah. ba yàlla boole leen. léegi nag nga ne non moom doyatuma il faut ma wuti keneen lan moo leen di motiver à ce que ngeen wuti beneen jabar. non du question de doyatul dañuy wuti beneen du du mm. lool de. Ah ah, non non non non mm-hmm. loolu xam nga tey. Mm-hmm. man du ma wax man. Mm-hmm. mais damay wax ñeneen ñoo xamante ni jot naa dund ak ñoom benn affaire boo xamante ni mooy lool. gis nga sa soxna bu la mënulee dara da jéem wuti koo xam ni da la mënal dara. Mhm. bu la mënulee dara ci. bu la mënulul dara. non non du question du financière non non mhm. Mhm. am na yoo xamante ni wareef yoo xamante jigéen da ko war a mën. comme yan jigéen bu mënul togg. mais xamoon nga ko balaa nga koy takk. non mais mais tey doo ko xam. Mm. nooy doxaan nooy dox labatee soxna. Mm-hmm. di labat. Mm-hmm. di dem seen kër naan da ngay ree rek da ngay xool ak yooyu. am na ñoo xam ne na ñoo xam ne duñ def yooyu. Mm-hmm. amuñu jot sax amuñu jotu loolu. yow doo ko def. amuñu jot bi mm. boo leen invité non xale jigéen dañ lay invité. sa kër dem traiteur ñu traité waaw mais yow di nga xam ne traiteur la. mais non mais ci kaw loolu bëgg nga ko noonu donc kay accepté ko rek boo ko takkee. du hmm. demee noonu. Hmm, hmm, kon maanaam yéen da ngeen di def cassure entre. bu ngeen di labat ak bu ngeen takkee xam nga tey. xam nga tey mooy li mhm. waxoon naa ko fan yii ci ginnaaw rek. ak gars yi phénomène bu bees bi jël appartement doo dëkk sa kër famille affaire yooyu noonu. Mhm. mais mënoo wàcc jóge liggéey ñëw sa soxna du la tegal lekk. wala mu ne day dem ci benn traiteur jënd fa par exemple commandé fa mu dem fekk kooku jeexal mm-hmm. nu muy def mm-hmm. mu dem ci keneen commandé mais non lool mënuñ ci dëkk commandé chaque jour par exemple mm-hmm. chaque jour nga commandé benn benn trente mille hmm? léegi yow gënul nga dem duggi marché ñëw dugg ci biir toggal sa borom kër jox mais c'est que da di xëy ñu xëy boo wàccee da ngay sonn comme li ngay sonnee yow gis nga li ngay boo wàccee ñun tamit noonu la sonnee bu ñu wàccee man donc des fois man waxu man uh-huh. waxuma la waxuma la man de uh-huh. man sama soxna bu wàccee lu mu guddi guddi day dugg ci waañ bi man sama soxna yi beneen di jëloo ngi nii man laa la loolee laa urey manqué na non man laa la ne laa urey naroon na la dal man laa la mais xaw ma xaw ma keneen parce que nekkuma kër keneen uh-huh. sama kër laa xam xaw ma kër keneen li fay xew xaw ma ko mais ñu lay joytu affaire yoo xamante ni mooy loolu. mais man joytu boobu laa d'accordul di jëlu xam nga li tax nit ki comme ni ngi naan rek boo koy labat c'est sûr et certain que même bu dee lu toll nii xam nga ko si jikkoom xam nga ko ci lu mu mën ak lu mu mënu mais da ngeen ko koy nangul accepté ko ko ba takk ko nag ba indi ko seen kër comme ni ñu wax ba nga xam ne instant yi yéy na sa gura law na la. ngeen commencé indi beneen tànk bukki bu ko defee loolu mooy indi problème yi si biir kër gi parce que kii da naan ah lu tax biñ nekkee nangam nangam. tey jii nii mu indil ma bii ko man li ma man li ma laajte mooy. Ah. est-ce que est-ce que takk takk ñaareel ñettel ba ñeenteel est-ce que est-ce que aayul. est-ce que. est-ce que aayul maanaam takk ñaar est-ce que daganul. góor warul am ñaari wala ñetti ba tey dugguma ci débat ah. dagan nag dagan dagan mais waaw loolu ama ama mu ne lu tey ñu takk ñaareel no cause yi maanaam dagan na loolu amul benn problème loolu moom loolu kenn waxatu ko kenn waxatu ko mais tey góor lan moo koy motiver à ce que mu dem wuti moom mu ñëw ci côté lekk bi mm-hmm. ne sa jabar bu mënul togg des genres yooyu nga dem wuti keneen c'est pas évident que ka ngay indi tamit dina mun togg mm-hmm. parce que ne ah, ah. da ngay déglu rek dañuy euh, dégg naa ko de yéen laa bëgg dégg ma ay kaa ngeen na ko ay kaa dama ne li mu wax dégg naa ko ah. ay kaa waxal rek maa lay déglu xam nga xam nga la urée moo ma fi manqué xam naa ne instant nii ah, naru leen leen woon may dara woo leen urée mu ñëw ci plateau bi day gën a neex su am na am na émission bu ñu def si ginnaaw mm. ma ne la ba ma ne la Euh, man li may lekk sama mm. jabar moo koy togg. Mm. man keneen du ma ko keneen du ma toogal ko dul sama jabar. c'est dafa am ñoo xamante ni du ñu gëm lool. mais man tey man moo tax chaque fois. man damay jël exemple sama bopp avant may génn. Mm-hmm. man lekk sonnalu ma de un. Mm-hmm. man. Mm-hmm. lekk fu ma fekk fa la may bàyyi sonnalu ma. man ay heure añ sax man mën naa bañ añ déranger wu ma. que habitude la boo xamante ni. dama ko tàmm yàgg na. mais lenn. mooy heure reer dinaa reer ba suur teg ci leneen couchant tëdd mhm. loolu mën naa def sama man aw ma problème boobu problème mhm. lekk aw ma ko mais am na ñoo xamante ni tey <clears throat> problème boobu la ñuy am parce que dañuy indi seen ay gan mhm. <laughs> dañu indi seen ay gan ci kër gi ñuy ñëw di leen seet si bu ñu ñëwee soxna si toggul deful dara moo tax des fois da ngay gis euh, yàlla na ma nañ ma baal ci kàddu bi da ngay gis ku nekk ci kër gi maanaam bon bi nekk ci kër gi di togg di yekk di def lépp ci kër gi ku jigéen ki di xëy di liggéey du def dara mhm. ñaata ñaata yoon lañ ko gis borom kër gi xëy takk kooku noonu teg ko ci kër gi nañ wax leen seen seen lu yomb la. déedéet ah kay seen bëgg lu yomb la parce ki nga xamante ne dafa ñëw sa kër. ki nga xamante ne dafa ñëw sa kër di liggéey waroo ko xoolee beneen <laughs> bët bu dul koo xamante ne daa ñëw di liggéey. waaw ma ma ñëw ma ñëw foofu ma ñëw foofu sa jabar ko engagé. sa jabar moo ñëw ba pare ma wax la. Fatou jabar man du ma mën a xëy dem liggéey wàcc sama jànk di may di ma yàq di ma toogal ay di ma ko yàqal di nga ñëw teg ko sa ko taabal sama sama li. sama jabar lu mu war a def sama jànk jànk bi moo koy def. waaw léegi. daa raison la pour ngeen takk ko non parce que raison bi non raison bi mooy parce que mënul toog. non mais mënul toog ku miin nit. même su mënee toog ku miin nit ci jëfam. Hmm. jéem a dugg xool moom mooy kan. Hmm. ku miin nit ci jëfam. dina dugg xool moom mooy kan. Hmm. loolu dañ ciy bàyyi xel de. man li ma lay wax balaa ngay takk sa jabar miinoon nga ko. waaw mais donc xam nga mënul togg mën nga mën nga may ma may doxaan nit uh-huh. Ah? Uh-huh. nga nekk ak moom uh-huh. te musoo lekk musoo dem këram di eh, eh, eh, fekk la fa añ fekk la fa musoo musoo musul am mais boo ko soxlee nga woo ko wala nga dem si këram toog ak yaayam papaam après ngeen toog ay 10 minutes 15 minutes nga ñibbi mais du heure heure añ du la fa fekk heure reer du la fa fekk ñaata yoon système bi ah? dëkk bi di parce que lu mu la maanaam lu mu la wax li nga li ci moom la musoo lekk lekkam musoo añ añ musoo lekk a añam. Mhm. du reer xamoo ni ndax mun na toog am déet. Mhm. mais soo ko laajee mën na la am ah, mën naa toog fekk mënoo toog. pour juste parce que voilà parce que relation bi moo neex mm-hmm. ñëw et cetera mais une fois mm-hmm. la yëpp feeñ. loolu ñaata ñaata ñaata góor ñoo fi ñoo ñoo ñoo nekk noonu. mais Didier Lou mu leen pousse def a nii nii nii nii. Mm. lu muy bi mooy takk ñaareel ku mu ñëw nga mu. mu jàngal ko mu jàngal ko sa taag mu jàngal ko toog. xam nga lu tax mënuma d'accord ak yéen ah. de la même nga ne ba ngay takk sa aawo demoo këram toggalu la donc xamoon ndax mun na togg wala mënul togg nga indi ko sa kër d'accord naa nga ne mënul togg dangay wuti ko mun togg mm-hmm. est-ce que tu vois mm-hmm. seen seen seen euh, nu mu tudd bëri vis mm-hmm. peut dina leen yóbbu ngeen takk ki nga xamante ne mooy liggéey si kër gi mais bu ngeen demee wuti ñaareel ok kooku tamit demoo këram pour euh, nu mu tuddati xara xara xara demoo këram ba xam ndax mën na togg wala mënul togg nga indi ko waa léegi mënul togg da ngay wuti ñetteel mais moom ngeen di non mais non mais li ngay takkaat. Ah. li ngay takkaat yow ah. est-ce que da ngay tëb nga takk ko nii. parce que casting <laughs> li lay li la xuri. Ah. li la kon booy takk ñaareel bi di nga ko test ba xam ndax mën na toog. non sa test sa test di nga xam ki ngay takk. déggoo li la xuri da ngay bañ mu xuri waat. mu la da ngay dem fi nga ko war a takkee nga takk ko xam ne kii mat lépp mat la lu dul ay lépp nga ñëw indi ko. mais doo xeexee nga takk nii nii rek. léegi d'accord léegi nee ngeen ñàkk mun togg. Mhm. waaw d'accord ak lan bëri na waaw ñàkk yëg sa boroom kër. yàq ñàkk yëg sa borom kër yëg cest à ah, mhm. yëg ko. yëg ko lan jox ko gëddam. merci. pour lan léegi naka la jabar mun a wanee jëkkëram ka tey jii nii jox naa la naka la. jëkkër mun a sentir man tey jii sama jabar jox na ma sama gëdd. xam nga man. Mhm. man kii kii mi ngi dëkk. Casamance di jéelu. déggul olof. non da ngay xam ni dé da ngay xam xam. mais ñoom dégg nga joolaa bu dee dégg nga joolaa rek nga làkk ko. mais non non ñoom. ñoom uh-huh. am na yarin boo xamante ni dañ leen ko yar uh-huh. yar ko seeni jigéen uh-huh. ci àll bi tamit noonu la demee par rapport ñu nekk Ndakaaru man bu ma la nee dugg naa fu nekk ci biir Sénégal xam naa tamit li ñuy dund ak feneen ak feneen da gis boroom kër bu nekk ci kër tëdd nii soxnaam nekk fële jaajajag bu ko xoolee sax war na mën ñëw ci yarin ba la wante ay xale yu ndakaaru xale yu ndakaaru bii. ay man góoru ndakaaru yi. xale ndakaaru yi góoru ndakaaru yi. moo dafa am góoru ndakaaru yi. xam nga yar yar dafa am solo. dañu mës dem 2012 Fuuta. ñun ay góor lañu quoi. ñu wàcc camion yi nii. ñëw di fóot suñuy yére. campagne ah campagne 2012 am benn soxna bu jéeg saa rek ñëw suñu kan man ko soxna si lan la mu ne ñun suñu dëkk góor la fi fóot. ma ni ko looy wax ni mu ne déet ma ni ko mais ñun dañuy vaccé suñu yére yoo xam ni moom la ñu war a solaat rek mu ne déedéet woo doomam. mu ñëw fóotal ñu suñuy yére. te bëri woon nañu xam nga gestion yooyu noonu. pour nga gis ko ndakaar dafa doy waar quoi. dafa am ñooñ dañu dañuy yëg nit dañu yëg nit de trop xam nu ñuy waxee ak nit. Mhm. mais ñàkk xam ni ngay communiquer rek dafa doy waar. Mhm. muy góor muy jigéen. Mhm. loolu rek dafa doy waar. ñëwal soxna si. d'accord. ba tey ba tey nangul naa la ko mais dama ne jigéenu ndakaaru góoru ndakaaru da koy nangu jigéenu village góoru village du dong wala ngeen di jóge fii boog dem jëli ñooñu indi am na am hmm. yar boo xamante ni bu amee ci yow rek muy ndakaaroo muy hmm. village ak muy fépp hmm. foo mënti dem ci àdduna da koy wane te da nga fay mën mais c'est valable pour ñu ak yéen moom laa lay expliqué ah, waaw d'accord moo tax léegi 6 ak 9 moo tax léegi déedéet 6 ak du mën du mën kii de déedéet <laughs> ma mm-hmm. wuy ma gis nga ci saaku pombiteer nee nañ bu benn yaakoo day yàq ya ci des. Mhm. waaw kon dañ koy seppi sànni na le. Mhm. kon dañuy seppi di tànn benn par benn. yi mhm. bon ñu dem yóbbu leen non duñ leen sànni de. dañuy dem jàngal leen leen. noonu la demee quoi. d'accord. na ko d'accord ok léegi nag euh, ba tey rek ñu nekk suñu émission kaay comme ni ñu ko waxee tey ñuy waxee luy polygamie dagan nag daganul jijelu boobu dugguñu ci mais maanaam tey jii lan moo leen di pousser à ce ngeen di wut beneen jabar ngeen ne ma ñàkk mun togg ñàkk yëg sa borom kër fala yemale list bi. gudd na bëri na comme lan di jël bëri na faatu d'accord léegi ba jël euh, sama téléspectatrice bi allo allo. allo d'accord dafa mel ni nag euh, jàppandiwul donc ñu xuus tuuti en attendant ñi bëgg a dugg dugg. Mhm. Euh, ci kaw loolu. d'accord ne ngeen ñàkk mën togg ñàkk nga yëg sa jëkkër. ak ban kii lu moo kii lu moo sànq yéeg yéeg. Mhm. léegi yow nga wax ban jigéen yu bari tey. Mhm. Euh, bu góor seen jëkkër bu leen defal li mm. damaa liggéey nga liggéey ma wàcc nga wàcc damaa sonn nga sonn mm-hmm. mënuma def lii mënuma def lii mënuma mm-hmm. def lii mm-hmm. sa borom kër nga ne ko mënu ma def lii mënu ma def lii mënu ma def da ngaa liggéey ma liggéey da ngaa wàcc nga wàcc da ngaa sonn damaa sonn di jëlu jigéen yi di wax loolu nag bëriwul bu leen ñu tuumaal ah, instant yi da ngeen ñuy ah, ah, boo jëlee benn un de femmes kenn moo ko si wax quand même pourcentage est minimum et minime bu leen ñu tuumaal non il faut teg loolu il faut il faut il faut ñu waxante dëgg rek il faut ñu dëgg rek oui allô allô allô dafa mel ni que oui Fatou kan moo wax Fatou Sène bu neex boobu. ah man la Adel xa. ah kooku Adelita la Adeline. <clears throat> noo def. ah dafa mel ni nag euh, sama connexion bi day daw. d'accord xam naa aussi problème de réseau la. certainement dina ñëwaat ah ndax moom moom xam naa ne moom moom bu duggee moom yéen ñaar moom du du baax ci yéen ndax dina leen dal. Mhm. waaw gis nga ma ñëw foofu ñaata ñaata jigéen ñoo ñoo ñoo nekk fii ne di xëy di gontu amuñu talluñu sax seen jëkkër bu ñu ci wàccee sonn. ñu si seen jëkkër la mm-hmm. liggéey bu ndaw bu ñuy def jànq bii mooy jànq bii mooy mm-hmm. jànq bii mooy bale jànq bii mooy fóot jànq bii mooy yàq ca sa jëkkër bu ñëwee jànq bii moo koy yàqal añ teg ko si kaw teg si teg si kaw table indi ndox bu sedd mu lekk teg toggal ko ataaya mm-hmm. yow en tant que jigéen yoo xamante ne yaay jabaram yow da ngay ñëw rek sangu set taal sa tele ay say tànk ci kaw ka ban jigéen ngay gis muy def loolu ñun xam nañ waree fu sëy di ñun xam nañ luy waree fu sëy benn jigéen ñëw di def loolu te sa jëkkër nekk à côté yow yow suñu émission bala passé su ma leen bi ma leen ne sama jëkk sama jabar moo may fóotal moo may toogal moo may moo may doo kaasoo leen hmm. da ngeen kaas ne noonu ji dara neew ci non moom moom attention nuance nuance moom dafa ne du lekk lekk boo xamante ne jabaram togg jabaram mooy toog di ko fóotal mais bien sûr c'est comme bien sûr ñu ne ko ça c'est vraiment un langage d'un type pauvre parce que boo demee ba boo amee <laughs> xaalis ah, doo xalaat naan sama jabar na fóotal na paase di nga wutal ku koy fóotal di nga wutal ku koy paase yaa ngi programme fan laa mën a fan laa mën a yóbbu sama jabar xaalis bi moo a programme laa a def ba xappi ak moom mais non pas toog di ko fóotloo mu liggéey xanaa chaque jour les fóot xanaa chaque jour les fóot mais chaque man par exemple damay dem sport. Mm. damay dem sport mais man sama yëre sport c'est ma femme moo koy fóot. dis convient pas. mais bu fekkee par exemple yére yii nii. Mm. mais bon am na bon buy ñëw di ko fóot. waaw fóotkat bi. Mhm. d'accord na. ay ji nag mais moom dafa ne fóotam lépp lu mu mënti doon jabaram a koy fóot. waxee noonu que na si war na ko war na ko fóot dama la ne man li mhm. may sol sama jabar moo koy fóot lu may lekk sama jabar moo koy moo koy toog mais am na ci droit. bu ko ne ko fóotal ma am naa ci droit ma ne ko toogal ma lekk am naa ci droit. sama jabar la. su ko munul su ko munul su ko munul na abba eh. ma sama kër amul bara wala ma takk takk bi ñaari ñaari ñaari ñoo nekk yi ñaari que damay ñëw dugal man am na jigéen yoo xamante ne na am na jigéen ne xëyuñu li jëwuñu de ñu ngi seen kër ñu imposé seen jëkkër pour ñu indi boon boon bi mooy def lépp ñoom li ñuy bu ñu yeewoo sànko set téléphone téléphone mais attention nous sommes des reines yàlla daf ñoo teral li kaw loolu lii moo tax lii moo tax lii moo tax tax say say say yu bari di tas mi moo yéen yu bari yéen responsable waaw baax na parce ngeen imposé ci biir kër gi moo du moo nekkul imposé eh, moo moo moo jaarul yoon li ngeen imposé ci biir kër gi mm. ay reine lañu waruma def lii waruma def lii waruma def lii sama jëkkër de ànd ak mooy c'est quoi ça doxewul noonu man chaque fois dama koy jéem a poser deux côtés quoi du demee noonu parce que léegi di jéelu dama la bàyyi nga tàggoog téléspectateurs yi sama laa uray ñëw na sànq ba léegi deux contre un la tey day nekk deux contre un côté jigéen yi tàggul ma ñëw dalal sama xam na da nga yàqam dama dem parce que xam na da nga yàqam dama dem parce que man moom waaw baax na merci beaucoup sa téléspectateurs yi di leen remercier bu baax a baax Euh, comme lu ñu faral def rek chaque jour du lundi au vendredi suñu kaay émission bu ñu ngeen faral di seetaan si suñu label TV si Sénégal kër des Sénégalais ak euh, dafa yàkkam dama ñu parce que dama ko instant yi dama mayu ma mayu ma ko fu mu nooyee xam naa urée la yàkkam dama ñëw toog rek ñëw battu <laughs> ci kaw loolu ñu dem euh, donc seetaani ki nga xamante ne mooy un artiste sénégalais bu tudd BM Jaay ñu seetaan clipam bi si polygamie sama tante bëggul am wujju sama yaay bëggul am wujju amoolu suukar baraada gendarmerie la ñuy mujjee <laughs> mu nekkoon donc BMG sànq may naa ko BM Jaay <laughs> na ma jéggal léegi <laughs> waaw kay donc mu doon euh, benn jeune artiste sénégalais je pense que quand même euh, li mu fi woy am na solo mhm. te neex na mu doon euh, toujours si polygamie bi yoru leen lu suukar baraada di signé polygamie du dëgg yaay kenn boo yorulee bëgg signé polygamie tamit da ngay sonal sa bopp rek. Eh, ndax doo jóg ci jaaral ni ma jaar ni la rek. Eh, waaw kay mais la rek. Hmm. na ko yéen la rek laa ko nga boo ziar naa la doom day ci loo nag. ah bon waaw ah Mbadou parce que ah, nag yéen seen émission euh, bi ngeen commencé. Hmm. Euh, Talibé xat rek ma maa leen di euh, seetaan à travers application bi. Hmm. Play Store. comme ni ma koy waxee tout le temps rek léegi kenn sonnatul bu fekkee da nekk ci yoon mën nga jël Apple Store wala Play Store nga téléchargé ko sa téléphone émission bi da koy am direct. tous les jours waaw moom laa doon seetaan dégg naa li fi waa ji wax eh, ci kaw loolu. sama ñu suñu suñu téléspectateur suñu Label TV yi di jéggalu eh, ci diggante démb ak tey eh, démb gisu leen ma ci plateau suñu kaay yi tey aussi tamit ma ñëw en retard maa ngi jéggalu tali bu xat la rek non damay jéggalu bul ma ah, dàq yaay sama xarit. Ah, bu ñu waxtaanee dinañ ah. jubóo. ok ce n'est jamais 203. <laughs> bul ma dàq boo ma dàqee làmbaay ñaaw euh, maa ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàcc wàccuwaay euh, di nuyu suñu gan gi nu mu tudd Ahmed Diop Ahmed Diop mm. dafa sant Diop moo tax mais li dégg yëpp dégg naa ko non Diop la sant sama doom baay la mm. sinon li mu wax yëpp dégg naa ko amul problème mais dama koy jégal comme Diop rek la sant waaw moom da nee na takk ñaareel bi c'est parce mm, dégg naa lépp dégg naa lépp parce que euh, testé testé nee na du testé genre yooyu noonu ci loolu rek man ma delloo la antenne bi en attendant. noo attendant non léegi kay moom euh, nu mu tudd kon euh, euh, BMG moom jox nañu yoon bi. waaw moom nee na. Mhm. amoo lu suukar baraada. Mhm. ngay signé polygamie. Mhm. yaay bëggul wujju tante bëggul wujju. ñu mujjee gendarmerie. xam nga loolu moom mooy di rek dañuy dem ci li nga xamante ne moom mooy conséquence su polygamie. waaw da ngeen di takk jabar. mais après avant ngeen di takk jabar yéen déjà léegi mode ngeen ko def. xaw ma phénomène de société la mais góor ñi léegi laa urey bu ñu takkul ñaare maanaam am nañ aawo hmm. am nañ aawo wii am nañu aawo c'est sama auditeur téléspectatrice yi may retenir rek allo allo <laughs> oui allo oui bonjour oui bonjour ku nuyoo nuyoo bu neex boobu allo allo allo waaw ku nuyoo nuyoo bu neex boobu allo allo yaa ngi dégg allo allo. Eh, waa tamit nag nu may def. ba ñu alo allo ba ñu wax. allo. bu dee yaa dégg. bu dee yaa ngi dégg. Ah, bu dee yaa ngi dégg da wàññi sa télé bi nga déglu ak sa téléphone. alo allo oui. allo. aloo Ahmed daa mel ni na gars yi bëgg nañ dugg waaye dañuy am euh, quelques soucis xam naa voilà voilà xam naa dinañ ko euh, régler euh, donc comme li ma doon wax la oreille dañuy am seen aawo teg ko mhm. lijjanteetuñu lu ko mën a bégal wala lu ko mën a happiness wala lu ko mhm. defaratuñ ko loolu de ñoom ñu mhm. ngi xalaat nu ñuy def ba am deuxième femme te li leen war warloo ak premier bi dafaguñ ko du dëgg nga am sa kër indi sa ñaareel déjà ci ndoxaanu ñaareel bi lañuy yàq deru aaw bi la ba kooku bu ñëwee du ko respecté da koy xam nga ñun jigéen ñi ñun moom dañoo gaaw a suñu bopp damay ñëw di sànni ay pic uray di ko won ne sa jëkkër wax na ma lii ci yow du dëgg waa kay euh, kan kan moo kan moo ñuy woonoonu ak ak baat bu neex bi Adelita kooku du doomu ndey Baba Galle ak doomu ndey Papa Diagne. gis <laughs> Adel noo def. maa ngi fi alhamdulilah. Adel foo ñuy woowee. maa ngi nii woowee Mbaye Yoff. naka waa Yoff maa ñu ngi si jàmm. ñëpp a si jàmm alhamdulilah. ah feex baa ngi leen di dugg. waaw. ok kon yaa ngi ci émission kaay yi tey ñuy waxtaanee li nga xamante ne mooy polygamie. lan mooy pousser góor à que mu jël euh, deuxième femme wala troisième wala ba quatrième comme ni ñu wax yàlla daganal na leen ko. wala boog deuxième femme beeg troisième femme yi yan conséquences lay indi ci biir kër gi. Mhm. waaw. man moom. Euh, macha allah seen émission bi maa ngi nuyu ñëpp ñu nekk plateau bi macha allah am na solo trop. merci jërëjëf émission bi affaire polygamie bi nga wax. man ñu ne góor yi leen di pour ñuy takk euh, deuxième troisième ba quatrième. donc côté ñun dinañ ci am tuuti part de responsabilité mais. de l'autre côté. man damay blâmer góor ñi foofu tamit. parce que nit ki dina ne ñun que man jaar naa ci góor macha allah. li nga xàtte tànk bi nga xàtte ñaar tànk laa la wax def bu mhm. ne mais man pour man góor ñu la nit ki wala si biir suñu kër pour man xaw ma ñoom bu dee xam nga yaay comprendre mhm. maa ngi lay déglu bu ñu xam naa la ñuy def dañuy def suñu waree suñu ko bu ñu liggéey ñu ne ay jigéen yi ñooy bon yi ñoo leen tegal ay bon yi ñoo leen def bu bu ñu ko waxee dañuy wax leen ne parce que xam nga tam jigéen tam bu ñu toog les bras croisés te mënuñu xam nga li ñu soxla yëpp li ñu soxla yëpp borom yi léegi xam nga xam nga balaa ñu lay takk mën na leen dig <laughs> <laughs> <laughs> bu ñu ah, que ma xam ñu may xam balaa ñu lay takk lu ne lañ lay former uh-huh. mais boo xasee ba dugg ci biir tey mm-hmm. beneen bi ñu ne est-ce que kii ma doon goro kii la sax uh-huh. tellement que changement bi automatiquement dañuy jëm a mel ñoo mel neneen. naan yéy na sama goro ba pare. waaw léegi lu ma neex laay def waaw fii de seet affaire de ba pare xam <laughs> nga léegi bu nekk ci biir bi di muñ macha allah Fatou di far bu tànk bay loo ko foraan bëgg a sëñ bi dégg bëgg mu kontaan. Mhm. mais ñoom lu ñu kontaan bu ñu génnee ñu ngi koy dem ci biir bi. seen mënin la. ah xam nañ seen bopp am na tegi xam naa moom après. xam na lu muy ree. Ahmed yaa ngi dégg sama téléspectatrice maa ngi dégg bu baax li muy ah, kay. waaw ah, d'accord ndax moom. ah mm. bàyyi leen rek garaawul de man moom. <laughs> man li muy wax nga wax ma dégg. <laughs> ah nee nga wax mu dégg la. <laughs> waaw man yéen moom garaawul daal yéen yéen a ngi noonu rek. yéen moom non ñun ñun ñoo nekk noonu parce que gi te bu leen jógee soxna si da di nangu li ma leen wax rek. looñu wax. mooy li ma rek yëg-yëg bu amulee rek day xaw a metti daal <laughs> yëg-yëg. ñoo yëg nag ñun ñooy ñun lu ñuy def ci biir kër bi xëy na <laughs> mënuma xoolal taatu damay bañ a wax sax émission bi xoolal ñu fekk la fi ma nekk yem ci ma. <laughs> non su boobaa dañ lay jël teg la fii rek. ne ko kenn du la fi fekk non kenn du la fi fekk Adelita beneen yoon yow laay invité nga ñëw toog si plateau bi parce que la oreille sentir nga ne Adel mii dënd lay waxee. Mhm. te li muy wax da koo ñëw te li mu wax dëgg la Ahmed. <laughs> mbaa mu dund ko. nee naa la ñu bëri mu invité si plateau bi ma toog Sénégal di ngeen xam man maa ko toogal jigéen ñi li ñuy daj man dama koo dund. Eh, mais kii day ñëw ah. day ñëw donc kii kaa la Adel kaa nga. Adel bu ñëwee nga ñëwaat non yow ak yow il faut ma indi leen ngeen def benn face à boo xamante ne waaw ku nekk xam naa dina xëcc ci côté am. Uh-huh. après dinañ xool nag gan moo siy gagné. kaa uh-huh. boobu moom dinaa ko lijjanti. ngeen uh-huh. naa la boobu boobu tam Sénégal yëpp toog du ñu xool. noonu laay def télé bi pour yéen la pour askan bi la. yëngatu lay def ba <laughs> da incha allah Adel dinañ la woo nga ñëw fii voilà ñu ngi jaajëfal bu baax nag dina la remercier ci sa contribution am na solo bu baax a baax ñu lay xaar ci yeneen émission jërëjëf. incha allah waaw bul raté suñu bës bi tey nag à 17h. la Ouraya koy animé. yéen ah, ah, ah, gis nga jërëjëf. <laughs> macha allah merci beaucoup Adel ma lay souhaiter donc nga passer un très bon vendredi. Euh, merci beaucoup donc euh, la oreille. Mhm. <laughs> wax Ahmed waxatul. li mu dafa ñemee wax. <laughs> kii du wax gan gi du wax li ma ko lima ko li ma ko kii li ma ko. <laughs> man xam nga lu ma comprendre ci yéen jigéen ñi. bu seen frère bëggee takk ñaareel yéen ñëpp da ngeen di jug. man nàkkawruma ci loolu. gauche droite gauche droite. pour mu takk ci ñoom def leen nang pour mu takk uh-huh. d' damay damay damay ñëw dama lay tontu ci li ba pare après doog doog a def. parce bi la saf. Mhm. Euh, li nga wax ni uh-huh. man déjà d' accorduma ci. parce que man personnellement. Uh-huh. man d' accorduma sama benn frère di takk ñaareel. parce que xam nga lu tax. dañu nekk ci mën nga dund ci euh, famille polygame mhm. nga gis euh, circonstances yu bëri yoo xamante ni mooy tax mhm. yow bëgguloo wujje mhm. euh, certes nag euh, ci ci diine l'islam la bokk ci ponk yi la bokk pour góor am ñaar ñett ba ñeenti jabar comprendre nga loolu kenn du leen ko bañal mais ci kaw nga mën ko ndax jabar duñ ko mat dañ koy mën boo ko mënee nga jël benn bu dee mën nga ko doo jeng mën ngaa tollole nga def ñaar su dee mën nga nga def ñett bu dee mën nga def ñeent nga tëj bunt bi fas yéene yokku xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga loolu mën naa nekk mais yéen du ngeen defee noonu première chose hmm. danga wax sànq jigéen boo koy labat doo am temps di xool lekk ak nang mm-hmm. te pourtant bi nga waree a takk ñaara da nga testé mm-hmm. lan moo tax mënoo woon jël sa temps teste xam nga lan mooy seen problème ñoom mm-hmm. góor ñi ñoom dañuy gis jigéen bëgg ko ci ay pose ongle bëgg ko bon non mais attends laisse-moi terminer laisse-moi finir un peu gis xamante ne sax ñooy jënd produit ñoom ñoo jënd waaw d'accord man góor bi nga xam ne def deful loolu man clash moo góor boobu mais la major partie yéen góor ñi da ngeen am vis. Mhm. visu piercing. Mhm. visu tatouage. <laughs> visu pose ongle visu teg greffage visu tresse.

waxee donc ci beneen forme bi mooy yow nee nga nu ma ko mën a waxee euh, doo lekk maanaam li ngay lekk sa jabar moo koy togg mhm. ba pare yow nga ne sa lekk bariwul mhm. déjà yaa njëkk tayalloo sa jabar jigéen da nga koy jox envie mu togg yaa ngi dégg mu togg parce que nag euh, booy booy lekk ci ngay gën a maanaam man gis naa góor yoo xamante ni bëgguñu maanaam bëgguñu woon lekk loo wax dina ah non garaawul mais buñ la gisee nga dugg ci waañ bi rëgël ba mu baax ñëw tey forcer sa jëkkër mu lekk mhm. par force day am appétit day lekk. Mhm. mais sa classe da ngeen di tayloo jigéen. léegi damay ñëw foofu noonu bébé bëgguma lii bébé bëgguma naa damay ñëw foofu tontu la ba pare. <laughs> ñëwal comme bëgguma bàyyi ma terminer rek. damay ñëw foofu ba pare xam na pour la man la man mhm. lekk sonnal ma. Mhm. Hmm? dama ko taam depuis bas âge. waaw d'accord lekk sonnal ma de hmm? nee naa la ci biir wax boo déggee wax naa naa la dinaa reer dinaa couchant. xam nga pour lan heure boobu da ko fay fekk. soxna si day xëy day liggéeyi. man damay xëy damay dem. Mm-hmm. boo ñib see tëdd moom mu dugg si waañ bi. mi noonu. ay waay ndaw Samb. d'accord léegi moom du sonn de ah moom du boo xëyee danga nga gis nga nag. ah day sonn. Fatou bu sonnee wuy ma. Fatou bu sonnee. moot mm. huile bu baax. Mm. maase ko. Mm. waaw kay mu tëdd nelaw. loolu mën naa ne. parce que non bañu ma ba tey man sama sama commencement wax dama la wax ni la bañu ma góor bi nga xamante ne. <laughs> Ah, dafa bëgg lu naturel ba pare nag di def waree fam mm-hmm. parce que nag jigéen ñi dañu bëgg lu baax. Mhm. parce que sa classe gi. Mhm. Euh, man moom gars yi moom moom mooy loolu mais yow moom sa classe gi bëgg ngeen. Mhm. Euh, sama jëkkër yi tey moom papa foog mu dugg ci waañ bi am na ma def ak moom. jigéen ñi dañoo bëgg lu baax. Ah, dañuy sëy surtout xale yi nouvelle génération bi yéen ñi ngi wax Dakar. mais Dakar xale yi fi nekk mën a togg dañoo bare. yaa ngi dégg mais sa classe gi. sama lekk bariwul moo tax jigéen ñu bari toggatuñu <laughs> te ngeen jël seen bët teg ko ci miin na daan doole bi ci biir kër gi arrêté leen loolu miin na daan doole waaw taxawal xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw am na côté boo xam te bañuma ko mhm. ndax euh, li ñuy wax naan xandoor bu dammee ci waar mhm. wàcc na ndax kuy liggéey ci bërëb ba ñu takk la fa defe naa ni sa liggéey rafet na mhm. waaye nag ci fànn bi nga xam ne dañu xam ne lii lu lu lu mën a nekk la buñ ko mhm. buñ ko xoolee xam ne ne lii lii lii lu ñu càmbar la lu mën a nekk la mhm. waaw waaw mais loo xamante ne dalay leen na yow sa jabar mu ngi lay def lépp lu mu la bëgg a defar ba pare nga sëgg ci min na daan doole ba perke rek moom ma jaaxal comme ni ko suñu euh, pour lan loolu beneen bi ci topp beneen bi ci topp beneen bi ci topp mooy ah, ngeen arrêté affaire sama jabar euh, man góor bu ma mi góor bu ma ñeewul sa jabar que ça soit très clair du ma dugg ci yow. parce que góor ñi dañu mbëgg mën weex bët. nga romb faatu romb kinne sa xel nekk ci moom nga xool kee sa xool nekk ci moom. arrêté nañu sa jabar valoriser ko. li muy def apprécier ko. comprendre nga surtout. bu sa jabar di def ngay apprécier. Mhm. parce que jigéen parfois sax mu def loo xamante ne erreur la. Mhm. mais nga am noo ko jubantee. nga am noo waxee ak moom parce que bi nga koy doxaan am nga noo ko doon neexee mm. noo ko doon neexale parce que nii fii labat labat yëpp a neex mm. mais bu ngeen demee ba ci biir néegu sëy ah noonu nga doon def ba am ko mm. boo ko defee ci biir néegu sëy je pense que di ngeen nekk ci a euh, euh, pour aussi tamit pour sama mbokk jigéen ñi man li may wax damay wax pour pour les deux côtés mm-hmm. waxuma pour benn kese dégg mm-hmm. jigéen ñi jonge nañu bëgg nañu lu baax motiver leen ñu liggéey ci biir kër yi mm-hmm. arrêtez s'il vous plaît mën nga ñëw waaw léegi. <coughs> am na kon acca. <coughs> léegi xam nga bi wàcc na ba zéro ci kaay nii <coughs> léegi man li ma la wax dama koy nangu. Mhm. lan tey yow mënoo xëy. Mhm. soo soxna xëy. Mhm. amoo leen amoo leen kii amoo leen par exemple pose boo xamante ni da ngay ñëw añ si ci kër ga. moom amul tamit temps ñëw togg ci kër gi. je suis loolu am na wala amul. si léegi yow par exemple yow góor bi. xam nga bu fekkee tey yee ñaar ngeen am pause une heure de temps. ngeen ñëw ci kër gi. Mm-hmm. boo leen ñëwee ko leen fay fekk. Mm-hmm. du daan doole bi nga miin daan doole bi te muy jël wërsëgam ngir lu mu dundalee njabootam bu leen fàtte waaw mm-hmm. man ni ñu leen di tuddee sax man dafa metti moo tax sax man la maa ngi jégalu ci kàddu moo tax may wax miin na daan doole parce bu nekk liggéey la. moo tax ñu naan miin doole. kii xëy kii xëy nekk ci booru tali bi sax. di for mbuus. ñu koy fay mi ngi liggéey. dëgg la moo gën moo gën ki def ki ne woon Maris Demba merci. moo gën lool. Hmm? Mhm. léegi tey boole ñëwee ci kër gi ngeen fekk ko fa ñoom ñaar. Mhm. des fois yow doo ñëw. Mhm. yow jigéen ki doo ñëw ku góor ki rek mooy ñëw. bu ñu yegsee ci kër gi min na daan doole bi comme ni nga waxee rek. di ko toppatoo sànq kii wax na ko. toppatoo ko lépp lu war ci moom da koy def. léegi yow boo demee tey ba gis ni kooku noonu yow chaque instant. mi ngi di wëy si say waaw ak say déet. nga am affection ci moom. merci parce que. miinante dafa doy waar. affection bañu ma loolu. miinante moom fu nekk mën na fa dégg. Mhm. loolu moo doy man foofu nag laay waxee mais man bu ma waxee bu ma waxee yéen ay jéem a gëstu xam fi ma bëgg waxee. Euh, comprendre naa fi nga waxee. Mhm. mais nee naa la am na yoo xam ne bu ñu ko càmbaree xool ko xam ne kii kat. Mhm. lii la jabaram tële. te kii am na ko. am na droit takk une deuxième femme balaa muy wàndiyaan ci biir kër gi te miin na kii mu waxtaan ci ak soxnaam ci ni mu gën a rafetee tey man te soxna man xaw ma kan soxna yi di nangu loolu tamit nag bëri bariwul moom man xaw ma kan de xaw ma kan de mhm. mais tey bu ma demoon ba sama tànk mhm. njortu ñaareel mhm. wallaahi azim damay toog sama soxna waxtaan ceeg moom loolu mooy respect xam nga tey xam nga tey tey dafa am loo xamante ni mi ngi am mu ngi tas kër yi comme ni ngeen ko waxee tas kër yi polygamie bi conséquences yi tas seen kër kër yi yéen ko wax da ngay gis koo xamante ni joxul cër jabar ji mm-hmm. buy doxaan lu nekk la yekk jabar ji ci lu mm-hmm. ñaaw mm-hmm. ci loolu bëggoon naa ci ay ngeen si yéen moom kaa boobu moom da ko maîtriser waaw nekk lay yekk jabar ji sama jabar lii sama jabar lee sama te yàlla xam na ni jabar ji melu noonu dëgg la mu takk kële indi ci biir kër gi kële ñëw commencé reewantu waaye man de sama borom kër lii la ma waxoon xuloo bi ne ñàpp ci kër gi man sama wàllu bopp man bu ma demee ba jël ba jël soxna ba jël ba jëlaat beneen soxna. Mhm. damay toog waxtaan seeg sama soxna. effectivement ne ko carrément dama bëgg jël soxna. Mhm. te su boobaa dinaa def kéemtalaay kàttan boo xamante ni ñoom ñaar nii lañuy def. tolloo gaa gaa gaa mënuñu ko. mënuñu ko suñu borom moo ko mën. Mhm. mais su boobaa dañuy tàll suñu loxo suñu boroom ñaan ko. ñaar yëpp def nii. nga xamante ni lépp da koy yemale. Mm-hmm. mais tey boo mënulee yemale rek mënoo yor ñaari soxna. dëgg la. bul ci dugg. kon yow su ma ko déggee ci waxinam mooy maanaam tey jii boo demoon bay wut deuxième femme non seulement di nga si waxtaan ak sa jabar mais doo dem di yàq sa deru jabar. pour la parce que ci conséquences yi nga xam te ne. waaw dé déggoo li ma la wax léegi nii. man nii man nii man nii maa ngi dund ak moom loo xamante ni. Mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. kon sant yàlla. sant allah day jëm kanam sax incha allah day jëm kanam. <laughs> Eh, te yàlla bu am ñaareel. déedéet loolu suñu loolu suñu borom la ko ñaanal déedéet <laughs> man man damay ñaan man man damay ñaanal sama bopp yàlla naa ko am. man ma lay ñaanal yàlla boo ko am. moom tey bu ñu ah, toogoon nii kon làmbaay dina ñaaw de. ma pare góor ñi takkatuñu jigéen ñi ñoo bari. yéen wax ji dañ ko war a wax yéen wax ji dañ ko war a wax. yéen da ngeen bëri ci dëkk bi lool. Eh, yaa ngi gën a bëri yéen bàyyi leen moo ñu gën a bëri bàyyi leen sama classe gi takk ñaar ñett ba ñeent commission xam ngeen ne seen di wax noonu tegawul fenn euh, gis nga y a des études yoo xamante ne ils ont montré que ne ëpp ñu leen fi ëpp boo xamante war ngeen ci sukkandiku pour naa da ngeen di wut ñaar ñett loolu boo la ñëppee benn boo ah. la ñëppee benn ah. buñ neexee mën nañ takk ñeent juróom garaaw ba takk ba <coughs> léegi juróom bi mooy takkoo bi. waaw mm. ah, day takkoo day sax dégg naa joxe bant naan puusal. joxe bant puusal am na sax dégg naa. bu amee ñeent. Ah. juróomeen bi bu la neexee kenn ci nii da ngay ñëw rek dégg naa jox kenn bant rek mu puus nga dugal nga dugal ñeent. yooyu dafa am ci dëkk bi am na waaw. yooyu dañ koy def am na fi am na am léegi nag léegi émission bi jeex. <coughs> mais comme ni ñu ko waxee sànq euh, polygamie bi dugguñu ci côté dagan na daganu loolu. non loolu nangul nañ leen ko voilà gis nañ tamit moom selon moom lan moo war a tax tey góor jël ñaari soxna mu aussi soulever benn conse benn conséquence maanaam kër yi di tas ndax ni ngay labatee sa deuxième femme mu ñëw si kër gi surtout bu dee ñoo bokk kër mhm. muy euh, donc indi problème diggante moom ak ki nga xam te ne moom la fi fekk mu amaat beneen euh, conséquence boo xam te ne aussi dañ koy remarqué maanaam sa say jabar bu ñu bokkulee kër boo aayee si la urey yow xamoo li xew sama kër mhm. boo aayee si keneen xamuloo li xew kër urey ci éducation xale yi tamit. ci côté mhm. boobu noonu. Mhm. dafay causer un énorme problème. Mhm. voilà. waaw man tey damay ñaan képp koo xamante ni muy sama moroomu góor ak ku ma mag. tey boo demee bay jël soxna. bay jëlaat soxna muy doon sa ñaareel. yàlla na la suñu borom may maakaan boo xamante ni ñoom ñaar ñëpp fa la ñuy dëkk. sauf que am na jigéen yoo xam ne duñ ko nangu day la naan takkal mais duñu bokk kër. déedéet su boobaa mooy li ma la wax rek. gis nga cër cër bi nekk ci yow. cër yow yaa fay jox sa bopp mu jëm ci biti mhm. boo joxlee sa bopp cër kenn du la jox cër c'est vrai nit mën nga kaf mën nga def lu nekk ci àdduna mhm. ku la gis ngay ree kaf mais am na loo xamante ni cër la yow yaa koy jox sa bopp mhm. ñu delloo la ko dëgg man bu ma demoon bay def noonu damay mooy li ma wax waxtaan la rek waxtaan la te allah kulli waxtaan la boo xamante ni tey boo leen ci demee début bi dina metti de. Mhm. mais noo leen mujjee di dem di dem di ci waxtaan di dina dem ba xam ni kii dafa bëgg. Mhm. effectivement te mbëggeel. Mhm. ci jabar ci borom këram. walaahi azim mën na ko takkali ñaareel indi tegal ko ci kër. yàlla tere laa ko def lu leer laa la ñaata soxna man de mës naa te mës naa testé mës naa testé benn soxna man koo xamante ne sama benn nit. ma koy wax ne ko euh, diw de boo ko woowee téléphone léegi. Mhm. Euh, su ma ko woon léegi téléphone. Mhm. ne ko gis naa ku baax pour sa jëkkër. daf ma naan ay te yoon euh, mu ne ma xaaral ma wax ko moom bu d'accord ma takkal ko ko. Mhm. mu ne ma mu ne ma loolu amul ma ne ko nañ nañ ko testé. ma ne ko su gañee ñaata nga koy jox mu ne ma dinaa yëkkati nangam euro jox ma ne ko d'accord y a pas de souci. ma woote téléphone. maa ngi moom ci kaw waxtaan boobu nag ma woote téléphone te kay yëgul li xew mhm. ni ma ko waxee noonu la amee am na ñoo xam ne dañuy takk seen borom kër mais jamono bi xamul tax mënatul nekk uh-huh. ah, li ci biir kër yi dafa bari li ma lay wax rek uh-huh. tey ji man sama frère bu doon jóg tey ji di takk jabar uh-huh. xam nag soxnaam ku baax la mi mu jàkkaarloog man di ma seetaan ah, ah yàlla wërsëgale nañu loolu yàlla na ci yàlla teg loxo ba nga xamante ne aussi tamit ah, fi ñu bëgg mu yegg fa yàlla fa yàlla daan na fa yàlla deuxième femme bi nar a baax baax baax lu mu yiw yiw yiw damay ragal hmm. parce que da ngay dugg da ngay dugg ci da ngay gis ay famille polygame yoo xamante ne euh, hmm. da ngay dund lu doy waar hmm. doo ko ñeme comme li nga wax sànq aussi tamit euh, gis nga njaboot man je pense que foofu day am faay parce que da ngay am temps tey ji nga mën nekk fii parce que am na ñoo xamante ne dañu nekk fu sori mhm. donc njaboot gi du ñu mën a nekk benn ba pare doo gis ñii lu bëri wala soit ñii rek ngay gis lu bëri mhm. yaa ngi dégg même booy déggante ak ñoom mhm. yenn affection yi doo ko am yenn éducation yi doo ko am comprendre nga yar yar dafa dafa doy waar effectivement niñ la yaree ca ba ngay ndaw moom ngay màggaale man gëw ma ni diw moo yàq diw amul man gëw ma lool man. Mhm. man bu may wax damay jël sam bopp quoi man gëw ma lool. li mhm. diw moo yàq di c'est-à-dire. da ngay dégg ne la diw àndandoo yu àndal kii dañ ko yar lii ak kooku moo bëgg bon bon boppam. effectivement. mais day fekk aussi am xam nga xam nga ñëpp am encadrement bu waaw mm. ñëpp yem encadrement bu dëgër am ñoo xamante ne comme ni ma koy waxee dañoo yóbbu neex yóbbaale am ñoo xamante ne ñoom am nañu force mhm. ne la non dafa am ñoo xamante ne dañ neex a fukk loolu dafa am effectivement. Mhm. d'accord euh, gis nga nit ki buñ la yoree rek jeex na. Mhm. waa say doom. Mhm. say doom bu buñ nekkoon Australie. yow nga nekk mais est-ce que am nga temps toog yar leen. c'est ça le problème donc parce que loo xamante am nga toog yar leen. dañuy teg foofu suñu baaraam moom day ñëwaat Ameth day ñëwaat. parce que bii nii vendredi prochain. <laughs> dañ parce que ñu tënk. <laughs> foog ñu tàggoo Ameth annoncé naa la devant tous doo mën a reculer vendredi ngay dellu si. non ni muy ñëwee moo ñaaw parce que polygamie li si war a wax dafa bëri. Mhm. léegi nag damay bàyyi laa urée nga tàggoo. waaw ah. euh, ci ci ci kaw tàggoo bi damay damay euh, ñaaxaat askan bi ñu góor góorgóorloo xale yu góor yi comme sànq li mu wax bu sa jabar dem banque nga gunge ko parce que li xew démb métti na trop xale bu jigéen bi ni mu ubbee oto bi pour daw sax mm. waa ji bu yoroon arme bu xaw man arme vrai la wala mun na ko tiire wala soit euh, fi mu ubbee oto ñëw laal mm. kii ko mm. muy di beneen problème déjà ndekete moom euh, kii mu agressé mm-hmm. agresseur bi mm-hmm. euh, ki mu doon agressé mm-hmm. ba yàq otoom noonu kooku mooy responsabilité hôpital bi responsable hôpital bi ñu koy fajee comprendre nga déjà xam nga loolu doy na waar <laughs> doy na waar man affaire comme film ci man donc ñu gën a góorgóorlu ci sécurité bi mhm. euh, aussi tamit may ñaax xale yu góor yi mhm. ndax euh, jigéen ñi mhm. ngeen yeewu góor boo ñeewul jabaram bu dugg ci moom parce que dañu bëgg sama jabar nii sama jabar laa juste pour xamat bëgg lamante wu mhm. euh, na ngeen euh, fëkk bañ leen a yóbbu ci loolu te xam ne ñoom dañuy jàng à tout moment mhm. dañuy changer à tout moment comme ay kàkkatar mhm. ngeen góorgóorlu ci loolu euh, te it ngeen góorgóorlu tamit sëy xam naa ne bëgg ngeen sëy jonge ngeen mën ngeen seen boor gën leen a yokku seen xarañte ci waañ beek yi ñoom seen bu ko defee dootuñu am benn benn clash buñ ñu def <laughs> ñoom loolu rek foofu 18h30 waaw. waaw ah, ah. sunu bës. gaañ yi ngi koy bëgg a def 18h euh, ba 19 17h euh, ba 19h lépp loo def dagat na ñoom ñu ngi koy bëgg a yokk. <laughs> waaw gis nga donc euh, Ahmed ba bàyyi la nga tàggoo. waaw waaw di rafetlu jotaay bi. Mhm. ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que kàddu yi ñu fi wax nag bu fekkee am na ci maanaam lu ñagas rek. ñu koy mhm, mhm, jégalu daal. ndaxte du suñ coobare bopp ñu ñëw fii pour wax lu ñagas wala def lu ñagas. wante dañuy ñaan rek képp ki nga xamante ni li ñu wax am na ci solo. nga jël ko rek def ko li nga xamante ni sa ngàndaay lay doon pour mu mën la dimbale ci lu bëri ndaxte tey mooy li ma rek góor góor góor comme muy góor comme muy jigéen naxtaan ko yomb na lool del dem ci li muy bëgg am xolu yërmande ci moom ba pare fii góor yi laay waxal lu bëri nag nañu am xolu yërmande seen soxna war nga wax de xolu yërmande bi ñu am seen ay waajur nañ ko jox seen soxna. Mhm. am ci ñoom xolu yërmande dëgg dëgg dëgg. Mhm. bu fekkee nag alaa àll aal sëy dagan na tas dagan mhm. suñu borom mooy xool ñi mën boole. ñi mu boole leen mu boole leen. suñu boroom yàlla nañ defal tawfiix defal ñu taysiir lépp loo xamante ni mu ngi yoot ci lu bon rek yàlla na ko faxas amiin amiin incha def jërëjëf euh, donc ñu doon waxtaanee li nga xamante ne moom mooy la polygamie cause conséquence ak euh, lu nekk nekk ci biir rek euh, maanaam am Ameth tënkal nañu tey la oreille moom nee na du ko may dara comme ni ma leen waxee woon xam naa ne bu toogee rek plateau bi day wàcc ci kaw loolu ma leen di remercier bu baax ci seen fidélité di leen di wax ne mën ngeen suivre émission bi si suñu chaîne YouTube ak si suñu réseaux sociaux yi Ameth Diop jërëjëf vendredi prochain dinañ la xaar maa ngi recevoir message yi gars yi nee nañ nga ñëwaat encore vendredi bi di ñëw kon mën a daw souhaiter un très bon week di leen di remercier bu baax di leen di jox dig daje lundi incha allah si seen émission kaay yi ci beneen thème ñeen lañ fi nekkal askan bi lañu fi nekkal ne leen xëy di kaa ba guddi ñu dem tëddi kaa xëy di kaa ci kaw kaa boobu noonu au revoir bon week <laughs>